asan ñu dooree ko ak li nga xam ni mooy jafe-jafe yi am ci wàllum euh, euh, pèlerinage bi muy aj gi jafe-jafe am na El dafa mel ni sax ci biir loolu moom mi ñu dénk dem beeg dikk bi ci Sénégal yëkkati na ci ay kàddu alaaji Abdou Top ñu del siwaat aj gi dañ ko waajaloon euh, liggéey ci lépp li nga xam ne waroon nañ ko ci liggéey ba mu yemb ñi nga xam ne ku ci nekk am na pàcc boo ci yor nga jël ay engagement jox ñu ay garanti ba ci sax ay document que ni li ñu waroon a def yëpp def nañ ko donc bu ñu demee ba ca biir ñu gis ne am na lu ca sooxe dafay laaj ñu taxaw xoolaat yi fi joyanti ko jubbanti ko comme ni ngeen ko xamee bi aaj bi commencé ak léegi fukk ak benn vol ñoo waroon a dem ci bésub tey ci niñ ko programmé juróom-ñeent yépp dem nañu te amul benn retard mu des yeneen ñaari vol yi benn bi dem na tey am na retard beneen bi suba lay dem loolu nag euh, euh, li tax mooy kenn ci acteurs yi muy Air Sénégal moo matalewul ay roplaanam ay avion yi nga xamante ne ni ñoo waroon a yóbbu ujaaji maanaam ñaar la ñu waroon am bés bu ne am na benn bu fi ne am na benn boo xam ne dañu ko luye woon benn boobu ñu luye woon mooy moom moo tardé ñëw moo yéex a ñëw ba tax na ak suñuy équipe ñu dajaloo waxtaan wut yeneen solution ngir mën a permettre ujaaj yi ñu dem moo tax tey daanaka ñu yóbbu lu ëpp ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ujaaj yi fi desoon donc mu des euh, ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk yoo xam ne suba la ñuy dem pour dire que euh, situation bi mu ngi sous contrôle et que avion wu Air Sénégal dina ñëw à partir de du début de la semaine plus beneen avion backup boo xam ne jël nañu ko pour être sûr que beneen retard du amati à partir de lundi comme ni ngeen ko xamee lii dafa nekk loo xam ni euh, dañu ñëw tombe ci waaye état continuité la donc dañuy assumer suñu responsabilité ba mu mot sëkk mais jàpp nañu ne xëy kooku mooy àll xam naa Abdou Top nga euh, wàññiwaaleel ñu retour bi nekk fii tuuti rek voilà ginnaaw bi élément bi jeexee euh, jaajëfal ko baax moom Fallou Sall nee na gars yi douze mille personnes s'il vous plaît incha allahu rabbi dana fa yegg léegi bu ànd ak dogal borom bi jaajëf sama gars yi kii la ñu dénk dem bég dikk bu Sénégal bi muy El Malick Assane wax na yu bari nag daañu jël responsabilité yi nga xam ne war nañ ko cee def ndax état continuité la waaye nag ni mu waxee daal jàpp nañu Air Sénégal dañ koo jox lu mu àttanul xëy na déwén buñ ca àggee lii du amaat. Mhm. ginnaaw ba mu xamee ni état continuité la ndax barki démb rek mi ngi yéegoon ci terre bi nga xamante ni mi ngi fi woon di kontaan eh, di tijji di kontaan daal di am mbégte mhm. kon nag bu demee tey am yu sa am yu noonu. ni mu ko waxee assumer ay responsabilité am kon lépp moom la. kan la. Euh, moom mii di El Malick. lépp moom la. lii xew. waaw lu tax. lu tax moom lañ ko dénk. mais léegi nag. Hmm? mais de départul de. non départul si ah. aj bi barki démb lañ ko félicité si terre bi mu doon bi mu nekkoon. waaw mais dama ni. te du moom. waaw non même buñ ko. félicité te départ ko woon. waaw non même buñ ko. félicité ko woon. waaw dama ni même buñ ko félicité. Hmm. dama ni lii. moom départul nguuru président Sall. mais moom xam nga li mu wax moom dañuy lii que damay assumer sama responsable ndax état continuité la kon moom xam na ni moom la. waaw mais du moom Assane. moom la. état mais man nee naa la du moom. moom la. moom moo assumer moom mais mais tàmbali ko. mais moom da ko bañ ba waxal ko boppam nee na maa ngi assumer samay responsabilité ki assumer ay responsabilités xam na ni kon moom la léegi nag. li ma bëggoon mooy. bu fekkee ne aji màkk gi tàmbali na kenn ku nekk nga jël sa saak paas dem aji avion yi bari nañ mais lii ñuy def at mu jot ba ba ma xamee affaire yi aji ba léegi man lii laa fi xam ba ña nga angaar na ko tudd na problème mais dama ne ba ma xamee affaire aji ba léegi ah, angaar tudd na problème bi yow xanaa déggoo ñun dañoo sonn si tudd bi ku ñëw tudd problème bi dañ see sonn léegi nañ assumer seen responsabilité képp ku bëgg a ajeete nga dem avion yi bari nañ nga paas dem aji ñëwaat ah non loolu sabar gu tas la waaw amul organisation. déedéet daa jar organisation. am da ni boo ànd boo àndandoo doo am aj. léegi soo wàccee boo boobu nga dem nga dem aj. Assane nag maa ngi doon xam ni kon ndeke yow nag kon kon. Ah, xam man nit ñi dañuy aji de. ñëppay aji bari ni màkk da nga yaakaar ni comme nga màkk boo demee da nga ni comme ni ñuy màggalee Tiwaawan la wala Tuubaa wala Tiwaawan est-ce xam nga ni boo demee màkk da nga fa gis nit ku mat 4 mètres da nga fa gis nit ñoo xamante ni ay deux mètres ay un mètre race ay race nit yu ne nga fay gis comme ni nga gis ay xarum tara biir. Assane nang ah? man laajuma la ay nitu màkk seeni taay de waa déglu ma rek xaaral xaaral waa déglu ma <laughs> man laaju laajuma la taayu màkk seeni taay ak topp pay laajuma la xari màkk seeni taay ak nag man ay avion laa la laaj fii mooy ana topp <laughs> alaaj man avion yi laa ko laaj mu dem ci ay taayu màkk nit yi nit yi màkk seen i taay mais problème bi fii la. dama la bëgg xamal màkk rek. yow la màkk lépp. mais laajuma la taayu nit yi màkk maanaam race a xam la El Malick. Mhm. nga dem i taay ak seen i race ak. waa mais mais alaaji non race nit yi am na fa de léegi nag léegi nag ginnaaw raas yi nit yëpp nga fa yow nit nga kay yow demal nga aj ñibbi si waat. waa mais loo ci dugalee raas yi. raas yi na yàlla. waaw alaaji li see mel ni mel ni see honte. li tax ñu ñuy wax li ñuy wax rek. di nga mën a fàtt alaaji de. <laughs> ah xam na li ma ko wax bu baax gis na raas yëpp. Ah. <laughs> dem na fa. non mais yow li ma la laaj fii de <laughs> yow da nga ni bërëg dugg ci euh, garde El Malick ma téye ko mu mu fëttal ko xamul fu mu dugg ci raas yi màgg. bërëb nga ni El la man la du moom indil la ay affaire ah. nga jóge fi dem ci raasi maag ay gisu alaaji kii dafa bari caaxaan barki yàlla ah wër na affaire yi jar naa xoolaat de affaire nañ xool nañ man race nga indi lu mu am na race xam nga li ma li ma wax ni màkk nañ dem siyaar yi nga ma loolu mais lu mu jotee ak pèlerin yi tardé non non pèlerin yi tardé maa bëgg ah. <laughs> li ma ko laaj lu mu jotee ay nit yu at non non dama ñoom nañ paas dama seen bopp yow nga ni ma loolu du am dëgg li ma ko laaj lu mu jotee ay nit yu at mat ay deux mètres non ah yow da nga ne dama ne nii paas demal seen bopp nga ne ma non loolu du am man la façon raas bu nekk nga <laughs> alaaji alaaji <laughs> man la loolu war naa mën a nekk nit xam nga saa jóg ngi jóg. non non wax dëgg la. mais dama ne la top euh, day euh, maanaam nit ñi war nañoo mën a paasal seen bopp dem màkka siyaare ji ndax bu nekk nga fa. loolu laa raas yaa nga fa. waa topp ana waa waa <laughs> ah li ah, xam na li ma wax baax na. non non waa waa d' waa dama ni la. man ah. d' naa li nga wax mais nan laa la laajee ci transport bu Sénégal. waaw ak ak ay kii nga dem ca Màkka naan ma ay. nit deux ba àggee. wala xam nga dama laa wutal dama laa wutal yoon wi ba ni ma àggee Màkka <laughs> man lépp laa la wax dama ne la ku nekk nay fay paas dem bañ a xaarante xaarante bi indi problème bi xaarante bee ko andi. léegi nañ bàyyi xaarante bi tey paas di dem di siyaare ji ndax màkka boo demee. non non ban solution lépp nga fa non topp dégg nga topp naan solution nga joxe. Hmm? ban solution nga joxe. solution joxe na. <laughs> nee na yow solution nga joxe. man solution laa joxe wax na dëgg. màkk koo mën a doon ba demee nga fa gis sa raas. non Touba ak màkk <laughs> bokkul de. raas laa wax moom raas. waaw mais dama waaw man li ma la laaj danga nga cee war a mën génne yeneen sew sew. lu ay <laughs> ay raas waaw waaw kaay mu jox la kon joxe. waaw ñëwal ko. El Hadj yow tuuti ci kanam dañ lay bàyyi ci suuf maanaam nga toog réew ñu tegal la fa micro ak caméra. Hmm? kon ñu bañ a jàllaat ci Assane dara. ma ñëw ci yow directement. <laughs> aywa. alaaji dégg nga élément wu El Malick Ndiaye mi dénk dem ak dikk bi li mu wax ci jafe-jafe yi am ci Air Sénégal. ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu kayit. internet bu baax. Eh, xam nga eh, mbirum aj man maa ngi aji woon 2005 ah. boobu léegi mu ngi nekk. dix-neuf am na fukki fukki at ak juróom-ñett man mii ba ñu demee sunu avion. Mhm. dafa am retard. dafa am foofa. fii <coughs> fii ok. pour te dire ñu daa dee. Mhm. dem ñu dalal ñu fii ci benn hôtel lañ ñu yóbbu. ok ñu fanaan fa. ba lendemain comme nii yëf yi demee nii rek noonu la demee. ba lendemain ci guddi gi la soog a départ. te boobu ñun départ nañ tàggoo suñuy kër ba ñibbi ba dem aéroport. Mhm. yooyu ñu vol bi kiiwul ñu nekk aéroport après jóge ñu yóbbu ñu ñu fanaan ba bët set ci guddi gi la ñuy soog a dem comme ni mu retard bi amee nii. kon retard yi yàgg na aj asan aj màkka bu boo gisee commission yeeg yii di ci am buñ demee dañ leen di organiser exactement pour bañ ñu réer malgré organisation bi yëpp dafa am ñoo xamante ni ñooy nekk giddi yeeg ñooy nekk kii mhm. mais maanaam day am sax ay difficulté parce que maa ngi fàttaliku année boobu ba ci privé bi di wax tey di wax ni pour ñu jël affaire yi foo ñu teg ko seen loxoog yooyu. Hmm. ci jamono yooyu privé bi sax. Hmm. am na ñoo xam ne yóbbu woon nañ ay nit. Hmm. bañ yegg màkk ñu am jafe-jafe ñoom màkk amuñu hôtel yoo xam ne sax fa dañ leen di dugal. ba mujj gi dañoo ñëw ci commission bi. parce que boo gisee lu tax ñu bari sax di choisir parfois dem ci commission. parce que gis nañ ñu bari ñoo xamante ne bi par exemple ci privé yi nga xamante ne bi tey ñoom ñooy wax naan nañ ko teg ci seen loxo. am na privé yoo xamante ni euh, ñu am crédibilité nag ñuy dox am na mais am na ñu nekk ci seen biir ñoo xam ni. Mm-hmm. Euh, seeni mbir doxut. Mm-hmm. loolu tamit dama bëgg ministre bi xam ko rek parce que fi mu toll nii lu ay lobby la tamit yoo xam ni ñu ci nekk dinañ bën a bëgg a mm-hmm. pour problème bi ñu bëgg a ngandal nga xam ne ñoom yàgg nañ koo dund ñu bëgg koo médiatiser bëgg koo ngandal mel ni comme si loolu. pour ñu bàyyee leen yëf yi. si wala pour ministre bi maanaam dañu bëgg nenn ministre bi comme rek. ni mm-hmm. mbirum ceeb bi ñuy wax naan affaire wàññeek yooyu ni lobby yi commencé jóg. Mm-hmm. maanaam fi mu toll yi gaa yi dañoo bëgg a noggatu gouvernement bi defe ne ni eh, gouvernement bi xamut lu bari te xamuñ ni eh, am na yu bari yoo xamante ne bi gouvernement bi da koy xam. parce que affaire mbirum administration laak yooyu quoi xam nañ yëf yi ni nga xamante ne bi noonu lay demee. il suffit ña fa nekk war a liggéey ni ñu war a liggéeyee rek yëf yi mën naa wax. léegi moom moom waaw moom dañuy bëri ni El la ma ne ko du moom. non El Malick moom wax waaw El Malick wax na ne du moom. ci biir wax ji parce que moom xam naa dafa dégluwut wax ji. normal El Malick dafa bëgg dafa wax ni. daf ne li ñu indil problème bi yëpp. Mhm. Air Sénégal moo ñu indil moo leen indil jafe-jafe bi mu ne waaye bu doon waaye bi ñuy ñëw fekk nañ yu bari xaatim nañ ko ba pare si préparé nañ aj maaka parce que aj maaka gi bu échecgee mënut a nekk nguur gi mhm. maanaam dañ koo jëlee ci ñeneen te mënuñu ko woon di laal buñ ko laaloon rek musiba am dañ doon ñëw rek fekk yëf yi ni mu teg parce que bu ñu ko laaloon problème am rek ñeefee lañ njëkk naa la ah yéen a ko laal. Hmm. donc mënuñu ko laal parce que lu ñuy préparé ci at la. Hmm. comprendre donc lu ñuy préparé ci at la teg ay mbir parce que lu mat douze mille pèlerins sénégalais yoo xamante ni war nañoo dem. Hmm. loolu du liggéey boo xamante ni bii liggéeyu. Euh, benn ñaari weer la liggéey la bu yàgg. mais moom nee na bu fekkonte ni bi tey kii xam nañ ni bët du yan waaye xam na lu boppaataan xam nañ li Air Sénégal man ak li munut mm-hmm. Mm-hmm. donc da ngay nangu ni bëgg naa sama kii dox waaye tey ji boo ko joxee lu mënut euh, doxut bu boobaa day yàq image du Sénégal te moom loolu wax na ko mm-hmm. donc nag moo tax bii di ñëwaat insha allah bu ñu sunu borom mayee boobu nag mooy ndoot boo xamante ni bii mm. ajam la ajam lay doon day fekk moom lii moom moo ko organisé war na teg mbir yoo xam parce que problème bi sax war na ko wan ne ko parce que li tax ma rappelé la ne la yëf yi fi mu jógee. dama la bëgg a xam ne man année ba ma doon dem Màkka ak léegi boo boog léegi même problème bi chaque année mu am. comme ni nga xam ne noonu nga ko limee woon sànq. Mhm. chaque euh, année problème bii day am. Ah, problème la boo xamante ni bii mënuñu ko résoudre. Mm. mais nag te loolu. bu déwénee nag bu ñëwee bu déwénee lu toogaat sénégalais naan du man warta am. waaw du man waaw dañu war a fexe ba lu mel nii dootut am. Mm. waaw donc nag. ñu ngi xool ndax gouvernement bi moom bés bu réussiree loolu ci aj maak bii di ñëw. Mm-hmm. ñu nekkat kat vol yi dem nañ bu ca nekk ci waxtu bi mu dem. amul benn problème bu boobaa ñu xam ne réussir na loo xam ni nguur yi fi jaar yëpp kenn mosu koo réussir. bañ a jël benn agence rek jox ko lu mu attanul. non ku ñuy jox ñu jox la loo xamante ni. attan nga ko attan nga ko quoi. si waaw donc problème bi problème la boo xam ne problème bu yàgg la. macha allah ñu ngi koy euh, wax ne ko rek na essayé beneen aj incha allah jafe-jafe bi mel nii bañ a am. que sax boo seetee ñoom il paraît que ñaari vol yu tardé parce que am nañ neuf vol yoo xam ne demoon nañ normal. d'accord. Mm. waaw bi ñu yegsee ci dixième bi kii bi defe naa fa la fa la jafe-jafe bi amee. jaajëf yi jërëjëf Baye Assane Mesre